internet yi dal leen ak jàmm jamono ji fële ca Ziguinchor ko jàmmaarloo bu métti moo fa am ci diggante takk der ak manifestant yi mu nekk nag loo xam ne jamono ji jéggi na dayoo ndax boo leen xoolee eh, bépp route boo xam ne rek jëm na fële ci kër Ousmane Sonko ñi mooy patriote yi daal nañ koy baare ngir rek bañ eh, ñi nga xam am accès ci fi nga xam ne mooy kër Ousmane Sonko eh, ba tax rek sànq ñu ngi doon signalé benn police boo xam ne daal nañ koy taal nekk nag mbir moo xam ne jamono ji daan mi ngi commencé ëpp ay loxo waaye rek sànq ñu ngi doon signalé ki nga xam ne mooy tata Mimi Touré daal Euh, mu nekk nag loo xam ne jamono ji daan jàpp naa ne euh, takk der suñu delluwut ginnaaw ñi nga xam ne mooy patriote yi duñu dellu ginnaaw benn yoon la bépp information boo xam ne amaa nañ ko rek dinañ leen euh, di leen wax ne woy leen di ànd ak ñun